xamee waa ah, suñu vision ci mandature bi 2023 2023 ci la ñuy doog di am possibilité pour defar suñ budget ni ñu ko bëggee bi nga xamee nii budget bi dañ koo defaree ci ay conditions yoo xam ne nii dañoo dem def ay forage ci quartier yi xool possibilité yi mën a am li nga xam ne nii moo ci mën a génn ci recette ndax bala ngaa wut dépense da ngay wut recette loolu la def ba may ñu ñu liggéey ci budget boo xam ne ni nii budget 7 trois 300 la budget bi bi mu ñëwee on a été voté à l'unanimité préfet mi ngi fi woon ak kii adjoint préfet préfet ak euh, receveur document yëpp yónnee nañ ko préfet biñ toogee ba mu yàgg mu xaw a tardé lañ dem seeti ko waxtaan ak moom mu wax ne dañ koy defaat seconde lecture yoon yónnee ñu lettre yónnee ñu budget bi ak orientation yi mu joxe biñ ko defaatee xool budget bi dafa nekk 7 milliards 44 millions 410 mille 471 mooy wàññi nañ ci 300 millions mais loolu danañ ko rattrapé ndax tout de suite yónnee nañu léegi 200 et quelques millions yoo xam ne nii fan yi di ñëw danañ ko dugal xaalis bu ñëw la danañ ko dugal ci suñ budget waat muy 7 milliards 200 kon différence bi li ñu woon ak li ñu voté waat tey 100 millions rek mooy différence bi loolu nag li ko justifié. dafa am solo ndax ñu bari dañu yaakaar ne budget bi dañu war a wuti sept milliards et quelque mais tey maire bi maire bi tey ak économie yi mu def ci budget deux mille vingt deux ñu ngi am trésorerie disponible euh, trois milliards six cent quatre vingt treize cent douze mille quatre cent deux kon ñun li ñu war a wutiwaat rek. muy 3 millions 350 mille 3 milliards 350 millions lañ war a wuti je pense que kaw Kaolack lu mu ñàkk-ñàkk war nañ mën a def lu mais ñun prévision yi ñu yaakaaroon ne danañ ko def mooy dañu bëgg fenn na ne bu jeexee ñu àgg 10 milliards te loolu mën nañ ko état nag mooy doxee noo xam ne ni dañoo am façon calcul mooy triennal la ñuy wax mooy da ngay boole ñetti année yi li nga ci def multiplier ko diviser ko par 3 yokk ci pour cent loolu lañu wax waaye ñun jàpp nañ ne liggéeyuñ ci loolu dañoo liggéey ne fii dara daaw fi de am fii dara daawu fi am ñu dem topp ko lijjanti ko ba xam ne loolu mën na fi am te respecté nañ daal li préfet wax tombewaat nañ ci loolu waaye gëm nañ ne ah suñ suñ liggéey bu baax danañ ci génn ci loolu nag may préciser que nit kenn du ko arrêté ci ambition su doon ay dépense moo ëpp d'accord naa ñu ne nañ ko wàññi waaye li nga xam ne nii mooy dañ ne la lii nga mën a amee nga ni ñun ñoo ko mën a wuti te buñ ko wutiwul ëllëg suñ responsabilité ñun ambition boobu war nañ ko mën a euh, bañ a euh, mettre en en waaye Euh, liñ def ak lii amul benn différence